Euh, monsieur le gouverneur, avec euh, cette autorisation de mon quelques cartes wolof euh, gannaaw installé comme préfet du département de Saint-Louis cérémonie le Bo Hamnebi c'est une cérémonie républicaine Adela Yagnam qui am kilifa ñëw gën ko fa daaj tey mën naa wax ne jataay bi loolu la euh, monsieur le gouverneur kon ginnaaw bi ma la santee gërëm la dama lay ñaan nga jàllale sama ngërëm ak cant ci président monsieur le président de la république son excellence Macky Sall cant ak ngërëm ci samay xarit samay mbokk euh, cant ak ngërëm man personnellement bu nga xam ne am naa ko di ko baaxee ma bëgg na jàllaleel bopp Euh, gannaaw loolu nangu naa jël mission bi nga xam ne moom la ma kilifa bi mag yi dénk muy ma jiite département de Saint-Louis jiite département de Saint-Louis nag boo koy def doo ko jiite yow rek donc ko képp da koy jiite ak nit nit ñi nga xam ne ñoom nga fi fekk ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu fan fal la fi teg la fi parce que bu fi nit nekkutoon désert ba kenn tegu fa préfet kon nag département bi nga xam ne moo nekk Saint-Louis ñu yàlla def ñu dénk ma ko à partir d'aujourd'hui en tout cas fas naa yéene ci kattanu yàlla ah ci ñaanu waajur yi jéem koo doxal ni nga xam ne moom la ko kilifu mag yi bëggee te monsieur le gouverneur rappelé ko tout à doxal ko ci njub doxal ko ci fayda doxal ko en tout cas ak ubbeeku képp ku nga xam ne war nga mën a sànni sa loxo ci action yi wala ci développement Saint-Louis maa ngi lay tàllal loxo te xam naa ne loxo bi da ngeen ko jël ndaxte joxoon ngeen ko ki nga xam ne moom fi wutu muy Mariama Traoré Mariama Traoré sama promotionnaire la ñoo génnandoo ENA en mil 2017 2007 waaye dafa nekk sama rakk euh, sës ci man te rëkkuma sama rakk bu jigéen bu baax ah Mariama ñu ngi lay ndokkeel ci nga xam ne nomination bi nga xam ne président nommé na la ko nga war a servir état bi toujours euh, fële ci département Louga ñu nañ yàlla yàlla yàlla defal la fa euh, en lu wees sa njort ndam ak succès di sant également di gërëm parce que aussi jataay bi ginnaaw bi ñu defee le discours jataayu sant ak ngërëm dong lay doon di sant képp ku nga xam ne kii ñëw na def déplacement bi ñëw teewee ci jataay su ma limee du ma matal parce que mbooloo mi moo ni toll mais li ma jàpp ci mbooloo mi rek ak euh, dayo bi ni mu ñëwee mooy xam nañ gëdd gi nga xam ne jox nañ ko tey cérémonie bi gëdd googu li ko symboliser mooy ni ngeen ñëwee en masse loolu nag aussi dafa may ñaax mais aussi damay waññeeku ñaax ñi nga xam ne ñi ñooy liggéey man ñoom ñi nga xam ne ñoom laa fi fekk te continuer liggéey ak ñoom ci suufu kilifteefu gouverneur de la région de Dakar de Saint-Louis wax naa sànq ci tubaab ma nekk gouverneur région Saint-Louis ci xam-xamam ci compétence am du ma du ma grioom nag quoi mais li nga xam ne moo am te moom lay wax mooy ci li nga xam ne moom lay doxal ñëpp xam ko ràññee ko mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la fiy def ñun ñi nga xam ne ñoo ko féete ndaw nekk administrateur civil ñun dañ koy sagoo loolu nag leen rawatina man mi nga xam ne bii yàlla def na ma am chance war a servir dans le département de Saint-Louis ci suuf ci lifteefam donc mu nekk chance bu mag en tout cas monsieur le gouverneur jàppal ne Modou Ndiaye sa collègue la mais li ci ëpp solo Modou Ndiaye sa rakk la Modou Ndiaye ubbil dana ubbeeku dana déglu say xalaat dana déglu say conseil dana déglu say orientation mais dana déglu say instruction parce que bu leen fàtte ne bii mooy sama premier poste comme préfet de Saint-Louis kon nag nañ yàq nañ jàpp ne liggéey d'abord weer yu njëkk yi moom liggéey lay doon jàng lay doon te am naa professeur boo xam ne matale na ko incha allah danañ continuer liggéey boobu. donc di sant di gërëm ñëpp képp nga xam ne daal teew nga fi maa ngi lay sant di la gërëm mënuma lim parce que suma ma limee damay juum mais délégation bi nga xam ne ñoo jógee dakaar ànd ak sama soxna bi nga xam ne moo teew toog fii mbokkam jàppale ko ànd ak man maa ngi leen di sant di leen gërëm sama soxna si nga xam ne moo nekk Jolof yaay ma ngi fi ak i mbokkam ak ñëpp sama doom yëpp teew nañ maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di sant sama xarit yi xarit yi wax naa ko sànq am na ñoo xam ne ñii ñoo bokkoon CM daara bi ñu ko ubbee en 2000 en 1987 ñi nga xam ne ñoo fa jëkk a jàng man ci laa bokk dañu forme benn groupe tuddee ko la génération, la première génération du CM de Dara. le coordinateur national est là tal du Tal. Il koy a di ko du groupe ko wax de sama tous les membres di centres également du Grum, le coordinateur national bi nga fait CFPP en 92 93 fii ci école normale bi donc ñoo ko beaucoup donc pour dire que nous, sommes maintenant en 92 93 mu nekk jamono ju metti du sedd ma daan traverse jóge Balakos jaar ci pont bi di dem ba fële école normale donc suuf si du suuf soo xam ne dama naan guléet en tout cas jaaroon naa fi dama fiy jaaraat jaaraat bii mu fay jaar nag fekk leen fi maa ngi ñaan yàlla mu nekk jaar boo xam ne bii kenn du ko fàtte ci lu baax kenn du ko fàtte ci développement en tout bañ a guddal monsieur le guverneur fii laa ma laa bëgg a xam naa ne ku lim juum sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp xar yi mbokk yi ku ma lu dul jiitu ci lim bi donc sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp wasalaam